mais Mbacke link bi link bi link bi mais Mbacke link kenn du ko forcé link kenn du ko forcé ay gone doomu Sénégal bi jantal booy. waaw waaw fii sax fii sax fii sax waaw. Ah. ah mais kon nee na kii <laughs> Yo, Vivian came all the way from Senegal. Yeah, man. Yeah, yeah, yeah. yeah. Hey, she and she won best new, well, best artist globally. Bro. Yeah, man. The, the trophies were the trophies. The trophies are right here. Yeah, man. Representing the Senegal, Georgia, for now. Charlie, <laughs> come out today. Charlie, come out today. nee na coow li commencé na non Akon nee na coow li commencé na grand mais Akon nga ne coow li ah ah. ndeysaan ndeysaan. jaajër la de jàmbaar la. big shout out. yaa kan naa nekk neex na trop. waaw. Hey, hey, hey, hey, Zena. Zena, Zena, that's William Boris. Zena, yay! DK TV mooy Dakar TV people. man Niakha lañu loo aka Faramaren music maa ngi seetaan DK TV. voilà man la Mame Fatou Ndoye maa ngi seetaan DK TV. Maabo. Maabo jaajëf waay DK TV. kon man alaaj Hadj Bekay Mbaye maa ngi seetaan DK TV. man Malick Thiandoum maa ngi seetaan DK TV. oui euh, man Moustapha Guèye maa ngi seetaan DK TV. man Viviane maa ngi seetaan. DK TV. yes sir yes sir Wally Ballago Seck mi ngi wu ci DK TV. people waaw man El Hadj Abou Bilal Koutia damay seetaan DKTV. pour yu am solo. ngaa ko blende maa ngi seetaan DKTV. di dundu gis DKTV. ma Lomzo Dall maa ngi seetaan DKTV. lañ ma liggéey li mu ngi DKTV iway dina ko seetaan waay voilà. yal na ngeen nekk ca kanam li neexul. DKTV.